ndeysaan combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante Fourrière Grand Yoff ak Baye Mandione ndeysaan Thiaroye sur Mer Baye Mandione cokkaas na Baye Mandione Fourrière Baye Mandione moo la woon ginnaaw rakk Baye Mandione la jël boppam tuddee ko magam Fourrière gone Grand Yoff la bu jàppee du bàyyi ndeysaan na ngay na ngay bëgg a xeex ñoom ñaar Baye Mandione door na daw na jàpp ko Fourrière bañ na Baye Mandione ngay door et eh, uppercut ci suuf Baye Mandione Fourrière Baye Mandione Fourrière xeex galaaj ya dagg na door na ko kaaw am na Fourrière jege na suuf Baye Mandione tooñ na ko lu mu nar daan na ko Baye Mandione daan na Fourrière kaay Baye Mandione daan na Fourrière Adama kaay ndeysaan Baye Mandione daan def ñoom ñun ñoo bëgg ñoom ñoom ñoo war suñu yaram doom bàyyi ma ñoom yow desay doomu dara yow desay doomu dara